121 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor leen ngir dara bañ leen raw jërë ngeen jëf mbokk yi internet info 221 doore waat ak yéen ci xibaar yi kii di Alassane Sall bu parti Pastef bi nag lib libéré nañ ko moom militant bu parti Pastef bi di Alassane Fall nag jot nañ ko libéré ginnaaw ba mu amee ñaari yoonu retour de parquet bu ñu sukkandikoo nag ci avocat wam Cheikh Khoureyssi Ba moom mi li sax nag dafa préciser rek ni kii di Alassane Fall dafay accepter subir nag lu jëm ci wàllum maanaam nag ay dafay am ay jafe-jafe ci wàllum xel moo tax rek nag bokk na ci li nga xamante ni euh, ci détenu politique yi nga xamante ne yàggut ba ñu leen libéré moo tax rek nag ci loi amnistie bi nga xamante ni président Macky Sall jëloon na ko fii moo tax ñu bàyyi ko jeune Assane Alassane euh, Sall moom mi sax nag jotoon nañ ko interpellé ñii di waa DIC ñoo def lu nu mel ginnaaw ba ñu koy toppee di xotti xormaawu magistrat bu Sénégal jamono jojee nag avocat bi di Juan Branco mi ngi doon amal nag ab conférence de presse waaye ci conférence de presse boobu nag mi ngi ci doon ah, le di jéem nag xoqatal ñi nga xamante ne ñooy recteur bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru ginnaaw ay xibaar yi ñu fasaloon ne moom dafay fas yéene ñëw ngir amal fa nag ab lii di conférence Juan Branco te ji génne na nag ginnaaw coow ju bari bi am nag ci ne day ñëw université ba tax nag waa recteur bu communiqué di xamal ne ne dalaluñu kenn rawatina Juan Branco fale ca université buñ sukkandiku ci kii di Pape Abdoulaye Touré ak kii di Falla Fleur nag ñoom jotoon nañu euh, affirmer rek ni autorisation bi nga xamante ne administration bi jotoon nañ ko euh, amal daanaka sax joxoon nañ apparemment sax nag ñooñee sax nag dañoo lànk ni euh, duñu dalal kii nga xam ne rek mu di Juan Branco Pape Abdoulaye ak kii di Falla Fleur nag nekk ay martyr dund metti ci kaso bi ci jamono ji nga xamante ni daal dinañ leen teg loxo ci jamono boobi sax nag ñoom ñëw doon sàkku waaye université ngir ñu jox nag eh, invitation kii di Juan Branco mun fa ñëwee ndaxte ñoom ñaar ñooñu dañ waroon bokk eh, ci conférence de presse bi buñ sukkandikoo nag eh, wala sax nag ci li nga xamante ni mi ngi ko bëggoon a amal ba tey buñ sukkandikoo ci avocat bi le recteur bu université dañoo accepté ba noppi jël dernière minute bi ñu daal di soppi nag seeni doxalin waaye nag jamono ji moom Juan Branco bu ñëwee lu muy amal waxtaan boobee ca CICES la koy fas yéene amal fa nga xamante mooy foire de Dakar nit ki nag ak alxamis bi tey bu 17h jotee euh, ca centre du commerce extérieur ñu gën ko xam nag ci CICES 4 avril euh, foofee la ko salle 4 avril sax la koy fas ne amale kon nag ginnaaw ba nga xamante ni universel lankal nañ ko moom nag Juan Branco xamal nag jot na leen xaw a jéem a tooñ tuuti waaye nag dina leen xamal ne euh, moom dina mujjee amal nag ndaje boobee fale ca CICES foofee lay waxtaane ak ñi nga xam ne ay nitam lañ